waxtu wi tey nag yembook euh, altine 13 janvier 2020 seen horoscope ci kàllaamay Kocc ñu pàcc pàccal ñu ci fukki signe ak ñaar ñu koy doole ci bélier yi nana wax ci wàllu amul sante ak travail amul boobee la ñuy wax nee na yéen célibataires yi ibbi leen seen i gët te xam ne yoon yi ngeen jaar baaxul li ngeen bëgg mënul nekk kon nag na xoolaat bu baax fa ngeen di teg seen tànk ci wàllu wér gu it ñu gis ne bëriwu leen ay défense immunitaire yoo xam ne dañ si nekk li gën mooy dem leen xeet seeti docteur wala médecin waaw médecin waaw docteur rek du manière général ci wàllu liggéey ñu gis ne tey jii de seen wër wërsëg la de yàlla tàccu na leen de boo leen feccee xéwal feeñ boo leen bàyyee ndikoo nag ah affaire yi dootul ñëwaat ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yooyu nee na relation amoureuse bii nga xam ne da ngeen siy nekk nekk na loo xam ne de seen dund dina ci calme de tey jii moom benn sérénité bu wër boo xam ne dañ nekk ñenn ñi nga xam ne nag ay célibataire lañ vie harmonieuse bii nga xam ne bëgg nañ ko munul nekk kon nag nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax ci wàllu wér-gu-yaram mu ne bien que yéen seen ji bopp dëgg la naam am nga énergie yu bëree bëree bëri yoo xam ne dañ siy nekk mais lépp normalement dina jaar ci yoon comme ni nga xam ne na nga koy xalaatee ci wàllu liggéey également c'est supérieur dina gis effort yi nga xam ne yaa ngi koy def loolu nekk li nga xam ne occasion la pour nga mën a laaj poste wala nga mën a yokk lu sa salaire kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jomo yi yéen célibataires yu jomo yi bu leen bàyyi ñu leen di influencer de ndax lii ngeen di xalaat bu ko imposer nit takkoo ko keñ ah Kader takkoo jabar takkoo ko lu dul di ko di ko labat donc dafa war a tax nga bëgg ñëw di ko jéem a imposer loolee nekk loo xam ne boo ko defee nee na njuumte dafay nekk li xam ne daf si taxaw ci wàllu santé ñu gis ne da nga def attention ci wàllu alimentation lekk gi ngeen di lekk wàllu liggéey it yéen seen njaboot bëri na naam ay imprévu yoo xam ne dafay ñëw ci sa emploi temps dina dem ba yàqal la lu bëri moo tax it na nga gën a organiser wu ci sa euh, wàllu mbiru liggéey. ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi am nay contrariété yoo xam ne vraiment dinañ nekk dugal su couple ci benn mauvaise ambiance bu doy waar boo xam ne daal bu fekkee ne fexewu leen ba juboo lëj-lëj mun na ci taxaw nervosité yi nekk li nga xam ne dafay fës ci yow lool nanga fexe noo ko surmonter lu dul loolu dina indi ay jafe-jafe ci wàllu wër gi yaram ci wàllu liggéey na ngeen jéem a formuler seen suggestion wala idée neneen ni ngeen di waxee li ngeen di wax am na sax mais ni ngeen koy waxee la ko gars du comprendre ñu leen di indil ay jalti jalti xam nga loolu aussi il faut ñu bàyyi si xel bu baax a baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lions yi ñu ne quelque soit situation amoureuse bi nga xam ne dañ si nekk mbir yi dina dox de affaire yi day neex de wàllu lions yi talkalla na de moom ay xeetu ay charme ay flirteeg ay joueeg yooyu noonu yëpp dafay nekk yi nga xam ne daf siy fës donc ci wàllu santé également ñu gis ne bu fekkee da nga nekk en ville jël leen temps def jël grand nooy bu baax seet neen kooku dafay nekk loo xam ne lu gën a bu dee da nekk ci campagne bi aussi na ngeen ci profité bu baax waa ci wàllu liggéey amul benn muskila wala ba gàllankoor goo xam ne daf ci fës lépp dina dox ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi yéen nag da ngeen nekk ñi nga xam ne ki ngeen di nekkal malheureusement dafa capricieuse loolu nag ah doy na waar boo moytuwul daal relation ba dina bëri ay lënc-lënc yoo xam ne dañ siy nekk ci wàllu santé également li nga xam ne mooy gën ci yéen mooy ngeen def sport wala ngeen di naan ay jus de fruits waaw loolu dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon ngeen exprimer wu seen effort yi nga xam ne da koy def incha allah rabi lépp li nga xam ne da ngeen koy bëgg day nekk loo xam ne luy sotti lay doon ñu jàll yaas nga xam ne ñoom ñooy balance yi mu ne nekk ñi nga xam ne tey naam dina am visite boo xam ne nañ dinañ la ko defal ah ci biir loolu ne di nga bëgg lool ba gàllankoor yi nga jàlloon ci sa ginnaaw nii léegi dina jeex ndax waa ji lay seesi vraiment sa xarit la yàlla bu mu nekk keneen la parce que moom du la indil jàmm donc loolu yi dafa nekk loo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu liggéey aussi ñu gis ne da soxla changer air danga soxla fii nga nekk nii dem feneen def leneen tukki demal gën na ci sa wàllu santé ci wàllu liggéey ñu gis ne vous êtes convaincant waaye nag euh, da nga soxla approbation sa supérieur ci sa yenn client yi pour nga mën a am li nga xam ne nga bëgg loolu dafay nekk loo xam ne lu gën lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi incident coow réeroo ñàkk bokk gis-gis xuloo day dox sa diggante ak ki ngay bëggante lenn rek moo mën a am génnal demal ah, ah kay demal demal demal keneen lii ma gis nii ci scorpion yi génn rek dem bàyyi mu sedd tuuti ba ci kanam nga ñëw fii ak ngoon wala suba boo ko deful doo fanaan ci néeg bi tey keneen waaw dama lay wax rek dafa attention na nga éclaté wu nag évacuer tout le plein bi nga xam ne dafa nekk ci yow bu génnee dina baax ci yow tey nag mu nekk bés boo xam ne danga war a concentré wu au maximum pour nga mën a réaliser ay projets yu am solo yoo xam ne affaire yi dafay dox comme ni nga koy buggee ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sayteel yi sa partenaire de fi mu nekk nii nee na xamul fan ban tànk ngay doxee de xamul ndax da ngaa bëgg xamul ndax lan ngay def parce que li ko waral mooy changement d'humeur yu bëri yi nga xam ne dafay nekk ci yow ci wàllu santé également sa environnement am impact sa wàllu santé donc na nga def attention wàllu poumon bu dafa bëri ay poussière rek yooyu compliment boo xam ne daal day jógee sa supérieur da lay may ay da gën a cawar li ñu wax ne fas lu mu daw daw daw nañ ko gën a làbbali donc loolu bu ñu ko làbbalee it wala ñu ñëw tamit di liggéey ci werefe ñu ñëw di la wax ne ah dëgg yàlla li ngay liggéey tarkaal na day tax yow ci sa jëm bopp nga gën a yokk ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi mu ne yéen seen vie sentimentale de temps yi taxu koo dox noon de lenn indiwu ko lu dul ay xeetu filaange wala njortu wala di seet nee ko seet nag gis kon bi yóbboo jaratul ngay seet ci wàllu santé également journée tey bi nekk journée boo xam ne da nekk sur les nerfs li ko waral mooy daal da ngay soxla benn affaire wala di wax ak ay nit mais li ñu la wax dara du ci am boo mënee teg tuuti musique nag nekk loo xam ne lu baax la doon pour nga mën a calmer sa tension nerveuse yi ci wàllu euh, liggéey affaire yi nga yoon yi nga nekk nii ci wàllu liggéey bi incha allah yàlla na la si may ndam ba nga mun ci am li nga xam ne da nga ko ciy bëgg ñu jàll ci nga xam ne ñoom ñooy verseau yi mu ne yéen journée tey bi dafa nekk une journée sereine rawatina ci yi ak famille bi day nekk ñoo xam ne daal day nekk seen discussion day nekk loo xam ne lu gën lay doon nga gis ne it am nga tonis bu mag waaye leen daal mooy cat gi mooy ñàkk nelaw da ngay gëmmantu demal nga tëddi nga nelaw lu mu néew na noo juróomi ci jàpp juróom-ñetti waxtu dina gën ci yow ci wàllu liggéey également bu serez moins submergé ci say activité li gën rek mooy nga profité pour mun a consolider yenn lien yi nga xam ne da koy am ak sa yenn collaborateur fa ñuy jeexalee rek àll moom mooy ci poisson yi mu ne bésu tey bi dafa nekk bés boo xam ne da ngay kontaan de da ngay bëgg de li ko waral mooy daal lépp li nga doon xëcc wala nga ko doon yaakaar yàlla def na mu ñëw de kon de tarkala na de même sur le plan sentimental lu baax a doon ci wàllu santé également faudra juste nga éloigné wu ci yenn nit yi nga xam ne dayoo da nga jàpp ne leen bañ c'est bon mais nag mun na la indil ay yenn jafe-jafe kon jaru ko euh, ci wàllu liggéey également yaa ngi jëlaat confiance ci sa bopp baax na rek pour nga mun a am ndam rapport ak li nga xam ne yaa ngi koy sóobu. merci Seydina Borom ñaari.